te mu bokk ci Daaru Salaam bi nga xam ne man maa ay président bi ay dix neuf heures yooyu dafa wàcc jóge jaxaay di ñibbi dakaar aw VDN 3 bi bi ñëwee ba foofu mu ne dafa saw saw wàcc di saw fi mu doon sawee ay woyu seen ko ñëw dugg ci oto bi fekk fi receveuse ba ñu nangu portable ba ak versement bi mu yoroon ak appareil ticketim bi bi mu doon liggéeyee bi show bi sawee ba pare ñëw di jël si otom dikk fekk leen ci oto bi mu gis leen wàcc de mu ñëw di xeex ak ñoom fi mu leen dina xeexee rek kenn ñoom jam ko jam-jam ba nag metti lool biñ ko yóbboo hôpital daal fala fanaan ci fajar lañ ñu xamal ne ne chauffeur ba mu dina ñàkk ba kanam moo tax ma ne naa ci def cri de cœur comme ça kilifa yi yéen ngeen dimbali ndax ñu yëg ko ndax insécurité bi ci VDN trois bi daal metti na ba jaaduwul boo fa awee guddi bu dee ne borom oto nga boo taxawee ñu agressé sala